أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني عيسى بك وذريتا من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يعطوني بسم الله الرحمن الرحيم allahumma bi aqwati laahi taala alkarim salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa farriu biaasi lamda wa basiru biha wa jamia ahibaayi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama آمين يا رب العالمين عتاب بالمملكة الأوتان باغنا سليم الله أكبر الله أكبر jiital bi. tey jiital ci nuyoo bi. ni ñu ko baaxoo defee rek. ni ñu ko baaxoo defe sunu kilifa. tey kilifa yoon yëpp. tey kilifa ak yoon yëpp. Cheikh Mouhamadul Mountakha. Cheikh di ko ñaanal. borom bàyyi ko fi. sunu borom bàyyi ko fi. dolli ko ak wér. dolli bali mu yéene liggéeyal Serigne Touba. yéene ko liggéeyal lislaam. yàlla may ko. ko ak wér. mu àggale ko ni mu ko bëggee te di ko ñaanal sunu kilifa sëriñ Cheikh li mu yéene ci liggéeyal waajuram yéene koo liggéeyal sëriñ Touba yéene koo liggéeyal lislaam sunu borom bàyyi ko fi defal ko ak wér ba mu àggale li yéeneem ah, yépp ñi ngi ndokkeel jullit ñépp ci réew mi ñi ci réew. mi ak ñi ci bitim réew. di leen ndokkeel ci bisu bii. tey ñaan jàmm ci àdduna bi yépp di ko njëkkee ci réew mi ñu dëkkee. di ko jàllale ci réew yi ñu gën a jege mooy sous bi. ba mu daj àdduna bi yépp ak ñoom ndax dafa mel ni àdduna bi jafe-jafe yi bari na lool. même suñu réew mi suñu réew mi nga xam li ñu jógee yàggut. waaye ginnaaw yàlla def na jàmm dégg waaye ginnaaw yàlla def na jàmm am ci ba lépp jàll. waaye mel na loolu moom ñuy wax daal loolu dafa mel ni mooy li xew ci sous-région bi. mooy réew yi ñuy tuddee CEDEAO. mooy réew yi ñuy tuddee CEDEAO. ak li réew yi nga xam ne xawoon nañ mel na am nañ seen bëri ci ak ci réew yi nga xam ne dañ cee bokkoon. mu mel ne tam mu mel ni dafa am ay jafe-jafe ci seen diggante. boo ko toppee loolu mooy ah, boo toppee xew-xew yooyu nag mooy dem ba ci sarxul awsat. diggante Israël ci diggante Israël ak Palestine. dem na ba jàll sax weesu ne na ba Yaman ak jafe-jafe yooyu it ak it ba yaman diggante ak Irak. ci diggante yaman ci diggante yaman li xew ci Bahrul Ahmar. ak ci al Bahrul Abyad al Mutawassit. mer Rouge ak Méditerranée. mooy mer Rouge ak Méditerranée. xew-xew yooyu it moo dem ba diggante Ukraine ak Russie. Russie. waaye xew-xew yooyu yëpp ci xew ci àdduna buñ ko xoolee. mooy day mel na ni àdduna baaxoo doxe réew yu am doole yi bëgg a yokk seen doole. réew yi am doole bëgg a yokk seen doole. moo tax léeg-léeg ni ñi gën a néew doole léeg-léeg ñu gën moo tax léeg-léeg ñi gën a néew doole loolu jafe-jafe yooyu di metti ci ñoom. Ah, kon buñ ci nag situation bu mel noonu. kon buñ tollee ci situation bu mel noonu. àdduna toll foofu. ci àdduna toll foofu. waxtaan tey ñi ngi ko bëgg a ci. waxtaanu taw ñi ngi ko bëgg a ci. Ah, maanaam li ñuy wax nit topp bànneex mooy nit di moytu topp bànneexam. Ah. borom wax na ko ci alquran. sunu boroom wax na ko ci alquranul karim. ci ay aayat yu bëree bari ci wuute. te aaya bu nekk nam koy waxee. loolu lay sabab. loolu lay sabab day mel na topp bànneex mën naa jural nit ay musib la sabab aaya bu ne koy wax aaya bu ne ni ko sunu borom di waxee dana ñëw ci beneen aaya waxe ko neneen nu bokkut ni mu ko waxee woon ci loo xam ne topp bànneex mën na koo indi ci ay safaan wa yaa yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ard bokk na ci sunu borom li wax ne yaa daawudu inna jaalnaaka xalifatan fil ardi faxkum bayna annaasi bil xaq faxkum bayna annaasi bil xaqi wala tattabici l hawa wala tattabici l hawa fa yudillaka an sabilillah fa yudillaka an sabilillahi inna alladina yadilluuna an sabilillah inna alladina yadilluuna an sabilillahi lahum adabun shadidun lahum adabun shadidun bima nasu yowma alxisaab waaw ah, mooy yonente yàlla daawuda mooy yonente yàlla daawuda sunu borom da ne ko nga wattandiku topp sa bànneex da ngay àtte nit ngay àtte nit ñi ci dëgg. te cee topp sa te bañ cee topp sa bànneex. te boo toppee sa bànneex. ndax topp sa bànneex. lam li muy indi mooy day day tax nga réere yoonu yàlla. da ku ko def da ngay réeral yoon da ngay réere yoonu yàlla. te yàlla wi te képp koo xam ne réere nga yoonu yàlla wi. lam lay jural mooy mbugalum ëllëg. lay jural mooy mbugalum ëllëg. ndax da ngaa fàtte woon na bis penc dana ñëw. ndax da ngaa woon ne bis penc dana ñëw. wax ne fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. beneen aaya sunu borom wax ne fala tattabi'ul hawa an ta'dilu. na moytoo topp seen bànneex. ba man laa jural leen a jural ñàkk a maandu. ba tey mu waxaat ne wala yuttaba'al haqqu ahwaa'ahum la fasadati samaawaatu wal ardu man fiihinna ci beneen aaya sunu borom wax ne wala yuttaba'al wal ardu man fiihinna nee na bu ngeen toppee seen bànneex mu ne bu ngeen toppee bu toppoon ñenn ci seen bànneex sunu borom bu toppoon ñenn ci seen i bëgg bànneex nee na kon adduna bépp dana yàqu kon adduna bépp asamaan ak suuf asamaan ak suuf ak ak lépp lu nekk ci asamaan ak suuf dellu wax doxatal afaraayta man ittaxasa ilaahu wa hawaa sunu borom dellu wax ne afaraayta man ittaxasa ilaahu wa hawaahu wa adallahu llaahu ala ilmin wa adallahu llaahu ala ilmin ba tey am na dafa mel ni kuy laaj wax bi maanaam gisoo dafa mel ne suñu borom day laaj naan naa gisoo ki nga xam ne dafa topp bànneexam yàllaam def bànneexam def ko muy yàllaam day mel ne kooku day dem ba jël yàllaam def ko mooy bànneexam gisoo ki nga xam ne dafa jël bànneexam def ko muy yàllaam ki nga xam ne dafa jël bànneexam def ko muy yàllaam kat ba mu koy def te bi mu koy def ak réer du ak réer moo tax muy def waaye xam na ab lu baax xam na ab safaan. kon loolu nag boo ko xoolee. kon loolu lépp buñ ko xoolee. ci koy waxee. ko na mu mën a jur. lu ci nekk sunu borom ni mu ko waxee ak li muy mën a jur. kon loolu mën a yóbbee loo xam ne mën naa yàq asamaan ak suuf. lépp loo xam ne nag mën naa yàq asamaan ak suuf. mooy ni yàlla tëralee mooy yàlla tëralee àdduna. ci nisaamul aalamiin ni yàlla tëralee doxalinu àdduna. Hmm. loolu lu ko mën a yàq lu loolu lépp lu ko mën a yàq wala mu wala mu dem ba sax bu yóbbu nit ki mu mel ni mën na ko tax a bokkaale wala lépp looy yóbbu nit ki lu lu tax mu mën a bokkaale suñu borom loolu mu lu ko gën a ko gën a lu a ko gën ko wóor a loolu lu ko gën a rëy gën ko wóor a di amul waaw te yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne laa yuminu ahadukum te yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax ne laa yuminu ahadukum xataa yakuna xawaahu tabian li ma jitu bi xataa yakuna ah, nit du du mën a mat mukk li feeg li feeg demul ba bànnee xam topp li ma andi ah, loolu mooy wa maa fa xusuhu wa maa nahaakum anhu fantahu ah. ba tey waxaat waxaat ne wa amal muhlikaatu salaas. wa amal muhlikaatu salaasatun. fa shuhun mutaaun. wa wa hawan muttabaun. wa hawan muttabaun. wa ijaabul mar'i bi nafsihi. wa mar'i bi nafsihi. waaw kon wala bëggee bokk na ci yi alaka ñett yi mooy. bëggee gu ëpp. wala nay. waaw muttaba ak topp bànneex. ak topp bànneex bokk na ci li alak nit. wa ajabul mar bi nafsi ak yéem nit yéem boppam. wa ajabul ak nit koo xam ne dafa yéem boppam. kon nag eh, wax nañ leen bakkan. kon wax nañ mel ne ne topp bakkan. topp bànneexu bopp bakkan. li muy jural nit ki. li ci ci sunu boroom tabaaraka wa taala wax. ak lenn li ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax. waaye ndax bànneex. waaye moom mooy mooy yëngal boppam wala daa am lu ko yëngal. bànneex ndax dafa yëngal boppam wala dafa am lu ko yëngal. waaw ah, dafa mel ni bànneex. bànneexu nit ki. bakkan moo koy mel ne lu ko soxla. bànneex bakkan moo koy soxla. borom wax ne wa amma man xaafa maqaama a moo tax sunu borom wax ne wa amma man xaafa maqaama rabbihi. wa naha nafsa anil hawa. wa naha nafsa innal jannata hiya al ma'wa fa innal day mel nafsu ci boppam to ne ba bakkanu nit mooy xëcc mooy mel daal mel ne mooy soxla bànneex day mel ne bakkan bànneex moo koy suuxat day mel ne bakkan bànneex moo koy suuxat ah, am na sax yeneen aaya yoo xam ne ma day wax nafsu bari na yeneen aaya yoo xam ne sunu boroom da ciy lëkkale diggante a nafs wal hawa bànneex ak bakkan yattabi'una illa dhanna wa ma tahwa kon sunu borom bu ne wanaha nafsu anil hawa am na benn waykat bu wax ne li hawan nufuusi li hawan nufuusi sariratun sariratun la tu'lamu la mel ni bakkan bi nga xam ne mooy safaan bi nga bakkan topp bakkan bi nga xam ne moom la ñuy bañ. mooy bay mel ne bi waykat bi wax. waaw nee na bakkan daal bi ci nekk. nee na bakkan bànneex bi ci nekk. mel na daal mbuut la mel ne loo xam ne daal lu kenn mënta xam. day mel ne lu kenn mënta xam la. day mel ne buy ñëw ci yow day jékki-jékki rek agsi. te day mel day mel ne doo xam fu mu lay jaar. mel ne daal moom bi loolu amee rek mu mel ne moom jébbal na nangu na day mel ne kooku nag day mel day jébbalu ci bakkanam ànd ak. wa xiltu anni aslamu mooy koo xam ne daal topp bànneexam ba mel ne dafa jébbalu ci bànneexu bakkan ci bànneexam. waaye bu ñu xoolee nag Serigne Touba li mu ci wax alayhi salaatu radiyallahu moo tax sunu yaakaar. tax sunu yaakaar sëñ tubaa radiyallahu anhu. Cheikhul Khadim radiyallahu anhu. wax na ci moom it moom mën ni mu ni mu mën a def ba loolu bañ a am mooy safaanu ku njëkk yi mooy bañ a topp bànneexam. ni mu wax ne jaawartu bil furqaani rabbiyal muin. malaktu nafsiya wa zaxzaxtu laayin axasu min dunyaahu zaadi lil jinaan axasu jinaan wan xaada lil hawa wan xaada lil hawa wali safal janaan sëriñ bi nee na foofu dëkkaale na dafa dëkkaale ak alxuraan léegi noonu yi nga xam ne mooy ñeenti noonu yi nga xam ne mooy ñeenti noonu nooni doomu aadama yi mooy bakkan mooy bakkan ak adduna ak adduna ak bànneex ak bànneex ak seytaane ku ci xam na wax na na muy jëflanteeg moom. ku ci nekk sëriñ bi wax na na mu jëflanteeg moom. nee bu dee bakkanam. nee na bu dee bakkanam. moom moo moom. moom moom bakkanam. fa bëgg fa mu bëgg fa bëgg fa mu bëgg jëm fa fépp fu mu fu bëgg a bakkanam foofu la koy jëmee waaye bakkanam du ko mën a jiital. bu dee iblis nag moom. bu nag moom seytaan. mu séparé woon moom defut ak sëriñ bi moom nee na séparé na ak iblis defut ak moom nen. moom du yëmuta ndax du ko ñu jëf du ko ñu maslaa. ak moom dépp dépp bu jëflanteeg moom sunu borom musal na ko ci moom. nee na àdduna nag. mu ne àdduna nag. def na ko mu yóbbale muy àjjana. def na ko mu yóbbalu aljanaam. bànneex xamit mu ne na wommatu moom. dafa mel ni bànneexu bànneex dafa womatu ci moom. topp ko. xaa yakoona tabian hawa tabian li ma kon bu ñu xoolee li yonente bi wax ne xataa yakoona hawa tabian li ma jiitu bihi kon ba tey mu waxaat ne kon sëriñ bi fay ba tey day dafa waxaat ne na annani lastu ara siwaaka wa annani lastu ara siwaaka yaa jaa'ilan hawaaya fi hawaaka yaa jaa'ilan hawaaya fi hawaaka ginnaaw yéen dana wax dafa waxoon ne ginnaaw sallallahu alayhi wa sallam ne nee na ak ngëm lim indi

sëriñ bi dafa giñ ci sunu boroom ne. maanaam def na yonent bi muy ab ab muy ab xaritam ak ab soppeem. ba moom lu bañ. ba moom lépp lu yonent bi bañ. lépp moom lu mu moom lépp bi lépp lu mu bañ rek yonent bi bañ na loolu. mu ne waat nabiyuna al mustafa xayrul wara xaradi fi kulli shay'in wa ma yaabaahu aabaahu su sëriñ bi nee na yonente bi mooy xemmem téefam lépp loo xam ne bañ na ko bi bañ loo xam ne yonente bi alayhi salaam bañ na ko loolu la sëriñ bi bañ kon kon nag li ñu wax ci topp bànneex ci loo ginnaaw waxtu wi xat na. ginnaaw waxtu wi nag xat na. tënkal nañ leen ci dara rek. nañ leen ci dara rek. ba xam leen topp bànneex li mën a andi nit ki. day tax topp bànneex dana tax nit ki réere yoonu yàlla. day day maandu. topp bànneex dana tax nit ki du maandu. mën naa yàq nisaamul alami. topp bànneex dana yàq nisaamul alami mooy doxin wi yàlla tërali àdduna. nit ki di jaamu bànneex am na mu jaamu naa dem ba it nit ki di jaamu bànnee xam na mu waroon a jaamoo sunu borom. wax nañ leen it ki nga xam ne ah, mooy bakkan bi mooy topp bànneex bi ñu demee ak ñu ñu wax na it ni ñu bëgg nga jëflante sa bakkan mooy nga bañ a topp sa bànneex. wax ki topp bànneexam. wax ki mooy ki nga xam ne dafa topp bànneexam ba mel ne daal jébbal boppam bànneexam jébbalu ci bànneexam. bànneexam. ak it ki nga xam ne moom bànneexam moo ko topp waaye toppul bànneexam mooy sëriñ bi kon nag nañu jéem a ci sëriñ bi ci loolu te moytu leneen li mooy topp sa bànneex ba mel ne danga ngaa jébbali ci moom ñu dégg na nu sunu boroom defal ñu dégg li mu wax te jëfe ko. te yombalal ko. te yombalal ñu ko. te yombalal jëf la jëf gi. yombalal ñu ñu jëfal ñu jëfe li mu digle. te yombalal ñu ñu bàyyi li mu tere. Ah, ñu ngi ñaanal ñu yàgg fekk bis bi. te di ko def ni mu ko bëggee te mu ñu ko. Ah, delluwaat di nuyuwaat ñëpp rek. di nuyuwaat ñëpp. Ah, jërë ngeen jëf. كان عند آل بدر ودر خادني المختار ما لقادا من ربي بربي فانقادا عبادتي لمن ما تتونا وخاد لي بالمنتخى المتونا رسولنا أحمد قد أرى بربي كلي فاختار من خاد من خادت بي ليلكم بالمنتقى الذي أجل